Mamadou Mbodj maa ngi lay ah, ngi lay fay yow yaay coordonnateur wu mouvement des forces vives du Sénégal euh, di F24 te jamono ji euh, gis nañ ne yéen a ngi bëgg taxawal benn logiciel bu yees goo xam ne jëm na rek ngir euh, parrainage ñu mën ko vérifier waaye tamit fexe ba moytu lépp luy ay doublon tey nax loolu pexe la ngir rek processus électoral bi mën a jaar yoon. waaw xam nga boo xoolee parrainage bi euh, dafa am ñoo xam ne deux mille dix-neuf par exemple euh, muy Aïda Mbodj muy euh, Malick Gakou muy Boubacar Camara muy Bougane Gueye Dany ak ñu bëri bëri dañ leen a bokk donc sur les vingt sept candidats cinq am na cinq ak dix yoo xam ne xamuñu lu tax ñu génn leen donc parrainage bi nekk problème boo xam ne dafa am ay pàcc pàcc yu bëri yoo xam ne mënuñ ko régler benn bi mooy doublon yi doublon yi ñaari traitement lañ ko benn bi mooy bu fekkee ne doublon dafa am euh, ni ñu koy traité conseil constitutionnel yaakaar nañ ne warul warul warul continuer parce que ki nga xam ne dañ ko parrainé euh, kooku deful faute parce que ki ko parrainé moo ko parrainé parrainé keneen donc waruñ ko ci sanctionné bu fekkee ne dafa am ñaari dubloo ci benn nit dañu war a xool kan lañu ñu war a njëkk euh, parrainé jox ko waaye du par tirage wala kii moo njëkk indi ay këyitam wala boog ñu dina ko ci ñoom ñaar ñëpp loolu moo juste bu fekkee loolu weesu na ñun ci biir F24 ñu ne suñuy candidat bu ñu bëggee kenn ci ñoom du am doublon euh, externe maanaam seen biir dañ ko nettoyé euh, ba nga xam ne du doublon externe yëpp dañ ko génne donc loolu benn euh, traitement la boo xam ne benn bi conseil constitutionnel moo ko moom benn bi f ak ay canadaam ñoo ko moom donc logiciel boobu loolu lay jëriñ mais loolu du doy parce que parrainage bi li ci gën a am solo tey mooy logiciel bi ak fichier bi logiciel bi nga xam ne moom la ñuy euh, vérifier parrain yi euh, logiciel boobu candidat yi amul ci benn prise amul ci benn maîtrise te observateur yi nga xam ne ñoo seeta ñoo saytu élection yi ci am euh, boobu léegi dañu ne pour que mu leer pour que mu am transparence code source bi nga xam ne moo nekk ci logiciel boobu ñëpp dañ ko war a xam te luy bi dañ ko war a vérifier ba muy commencé ba muy fin loolu mooy tax confiance am parce que contrôle boobu moom mooy indi confiance donc confiance amu du tout ci logiciel boobu parce que ba tey jii mille dix ba léegi ña nga xam ne éliminé ñu ngi jooy mais comprendre ñu parce que nee nañ logiciel bi maîtriser wuñ ko donc loolu mooy solution bi gën am maanaa pour que ñu parrainage bi leer beneen bi mooy fichier bi parce que parrainage bi dañ koy teg ci fichier bu fekkee fichier bi ñi nga xam ne ñooy candidat yi xamuñ ci dara wala ñu xaar ne au dernier moment ñu jox leen ko loolu du aider à la transparence et à la confiance tey jii logiciel bi et loolu la ñu recommandé rek loolu ñun rek ñoo ko recommandé mooy fichier bi ñu mettre ko la disposition des candidats de la Sénat et des organisations de la société civile mais mm-hmm. tax sax bu ñu defee loolu pare ñu affiché ko ci commune pour que population yi citoyens yi xam fan lañ toll ci fichier bi donc mm. loolu moo indi transparence loolu moo indi confiance loolu mooy tax bu ñu demee euh, ba ca cappaandal ba kenn du am loo wax parce que dafay leer nañ. alors euh, F24 mbébétam euh, moo gënoon a nekk ci fexe ba kii di njiitu réew mi Macky Sall du euh, def lii di troisième mandat tey jile dañu ci bëri ñoo ngi naan F24 taxawaayam amatul njëriñ loolee ban jàngat nga ci am. waa xam nga ba ñuy fekk F24. dañoo def benn charte. yoo xam ne ñetti bokk yëpp dañ ko suñu te charte boobu ñeenti poñ ci nekkoon benn bi mooy troisième mandat warul am Sénégal. parce que constitution da koy tere beneen bi mooy dañoo war a tàggat euh, en tout cas takkaloo ak li nga xam ne mooy activité juridique ou politique yuy euh, tere ñeneen ñi du candidat parce que gis nañ ko 2019 Khalifa Sall euh, ak Karim Wade tuumaal nañ leen ba pare fexe ba bokk ci élection yi te lu bari dafa ay vices de forme ak ay violations de nos droits donc ñu ne acte judiciaire yooyu war ko fi am te li ñu gis tey mooy ñu koy teg Ousmane Sonko dañu koy waaj a xaaj euh, tere mu nekk donc ñu ne loolu mooy deuxième point bi ak parrainage bi nga xam ne tax na comme ni mu ko waxee sànq ñoom Malick Gakou ñoom euh, Aïda Mbodj ak ñoom euh, Bougane Gueye Dany ak Boubacar Camara ak ñoom ñëpp bokkuñu ci 2019 donc loolu ay actes judiciaires politique la. yoo xam ne dañ ko war a dindi beneen bi mooy ñu ne prisonnier politique dañoo bari ci kaso bi boo bañ koy wax sax Alioune Sané kenn tëju ko ci diggante bi tëj nañ ko te teguñu ko fenn Pape Abdoulaye Touré ngi fi Mamadou Ndiaye bu Bambey mi ngi fi euh, Karim Xuruxaas mi ngi fi ak ñoom Ousmane Sonko ak ñoom ba euh, Keita ñoom Bassirou Diomaye Faye ñëpp ay prisonniers politiques lañ bari lool lool lool ci kaso bi am na ñoo xam ne sax politique ñu manifesté wuñu dañoo romb rek ci mbedd ñu jàppaleen mm-hmm. donc ñu ne loolu lañ ko dindi benn bi ci def nag mooy mujj bi mooy élection yi élection yi dafa war a jaar yoon parce que deux mille dix neuf xam ne doy waar mu fi am ba Abdou Diouf ñàkkee dafa félicité Ablaye Wade ba Ablaye Wade ñàkkee dafa waaye Macky Sall ba mu defee deux mille dix neuf ñeenti kandidat yi mu àndaloon yëpp dañoo taxaw jàpp seen ngémay lu ñoom daal daal lu euh, ñu li ñu gis daal doyu leen donc muy victoire technique boo xam ne en amont ba ñuy commencé élection yi processus bi lañ ciy def ay lënt lënt def lënt lënt ba nga xam ne bu ñu àggee euh, day am ay ay ay jafe-jafe hmm. donc ñu ne loolu nañuy xool naka lañu defee ba nga xam ren bu ñu paree élection yi dafay leer nañ ku ñu gañee ñu xam ne moo moo ku gañee ñu xam ne moom moo gañee ñi ñu gagné félicité ko. loolu daal lañ bëggoon. très bien nan nga gisee tamit assurance su Sidiki Kaba jëm rek ci transparence transparence su euh, jogante njiitu réew mi atum 2024. xam nga jëf moom moo ëpp doole wax euh, li ngay jëf la ñuy xool lañuy ñuy te jëf ji mooy li ma koy léegi boo xoolee plus comme ba ñu ne dañuy def révision des listes waaye au lieu que ñu def ko ci lu yàgg ñu def ko ci benn weer rek te boo ko defee benn weer rek da ngay tax ñi nga xam ne ñooy primo votant yi ak ñi nga xam ne xëy na jotuñoo bind ci temps yi ñoo ñooñu dañoo bari ñu doon xaar ñu mot un million ñu jël ci trois cent mille dong donc loolu entrave la à la liberté de vote boo jëlee loolu barka démb nga gis Sénat bi euh, niñ ko tegee niñ ko dindi d'abord parce que arbitre la arbitre situé benn faute contre euh, ak euh, benn euh, camp bi nga tebbi ko ba pare teg ñoo xam ne ci beneen sa camp lañ bokk loolu lu ñaaw la dafa mel ni élection yi déjà mu ngi tax suuf donc loolu gis nañ ne mun rassuré nit boo gisee itam li nga xam ne moom la e def ordonnance de justice ñëw tege nga ne du ma ko du nangu Euh, dafay mel ni ay fonctionnaires au ordres ñoo fi ne nekk ay complice ci élimination ay candidats te loolu yëpp ci en la donc ci jëf ji fi xewagum rassuré wul dara ci nit wax naa sànq ne euh, parrainage bi am na ñu éliminé woon deux mille dix neuf nañu fexe ba ren bu ñu leen di éliminé mu leer nañ donc euh, jëf ji moo am solo tey moo tax tey ku ñu toll nii am na yu bëri mu nañu ko rectifier moo tax ñu def alerte bi mais puisque parrainage bi pareegut fichier électoral bi mu ngi fi euh, logiciel bi ngi fi euh, nañu fexe ba nga xam ne li nga xam dina tax mu leer ñu teg ko waaye du ay wax kese surtout que ñuy wax promettre nañu lu bari na ko defuñu ko barke dem rek deux mille vingt et un la publiqué wax ne dina di benn commission d'enquête bu mag boo xam ne ñi dee ci deux mille vingt ko leer dana leer ci ñaari at ngi nii donc wax rek ñu tax ñu am confiance lii rassuré nit mm-hmm. mooy ay jëf ay jëf yoo xam ne day teg transparence teg euh, ah, euh, benn euh, élection boo xam ne dina leer naññ mais ay jëf la laaj waaye waxuñu ay wax. alors gis nañ tamit mouvement fit génn ñoom tamit di wax ci lu jëm ci neutralité bi war a am ci jogante njiitu réew mi atum 2024 également. waaw xam nga loolu moom Abdou Diouf defoon na ko fi Euh, ab lay Wade euh, def ko euh, ba tax élection yi nga xam ne mooy deux mille ak élection deux mille douze daanaka kenn waxu ci dara donc bu fekkee personnalité non partisane la consensuelle maanaam kii bu ñu joxoñee ne kii daal moom la élection yi ñëpp dañoo ne ah kii daal am nañ politique moom ah, mu jë mu jox ko yi mu jaarale ko yoon defe naa ne loolu mooy li gën ci réew mi te Macky warul def lu gën a néew li Abdou Diouf ak li Abdoulaye def loolu ñun wax nañ ko démb euh, ci suñu suñu conférence de presse bi nee nañ il faut une personnalité non partisane et consensuelle pour euh, gérer les élections mmh. loolu fit wax moom la citoyen sénégalais yëpp wax moom la F24 wax moom la ñi nga xam ne bëgg nañu réew yëpp loolu ñu wax na ko na ko ab euh, Macky Sall dégg noonu jëfe ko noonu parce que loolu moo baax ci réew mi. Mamadou Mbodj jërëjëf. maa ngi leen di gërëm di leen euh, nuyu seen spectateur seen auditeur di ñaan jàmm Sénégal. alors may fàttali rek ne yow yaay coordonnateur mouvement des forces vives du Sénégal di f ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.